شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان بسم الله الرحمن الرحيم نيجي sant بروم تبارك وتعالى wa taala تيمبولم تيري gënale di julle ka salmal ci sunu sang bu tedd ba sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mom mi yàlla gënale ci mboolem yonent bu ko jitu wacce ci momit alquran alqur'aan mbokki jullit yi yu tay bi mi ngi aju ci firi sar wi di suratu tin wa tin wa zaytun ba mu jeex borom bi tabaaraku wa taala wu be ko bismillahir rahmanir rahim Bismillahirrahmanirrahim. irrahmani nañ lamuy firi te moy maa ngi ndimbal ci yalla di barkelu ci turum wi di allah ak rahman ak arrahim ci jëf ji may def mo xam da ngay jang mo xam da ngay def leneen lu nga barkelu ci turum yoyu sakku ndimbal ci mom ci jëf jojé mu tambalé ko wattini wazzaytun wattiini wa zaytuun boroom bi tabaraka wa taala giñ waxoon nañ ne yàlla bu waxee giñul dañ ko war a gëm bu diglee dañoo war a def bu teree dañoo war a bàyyi fama baalu ko boroom bi tabaraka wa taala mu màgg mi giñ yàlla ne wattiini wa zaytuun mu giñ fii ci ñaari garab yoo xam ne fa gën a siiw fañ koy bay mooy Cham diggante Syrie tey ak Ordon ak Palestine ak Liban yàlla giñ ci ñaari garab yooyu muy attiin tubaab di ko wax fig ak azaytuun te tubaab di ko wax olive muy ñaari garab yu ñu xam yàlla giñ ci ñaari garab yooyu waxoon nañ ne borom bi tabaraka wa lu ko neex mbindeef mu ko neex mën na cee giñ ngir teral mbindeef mooma waaye wax solo soo xamante ne mbindeef moomu am na ko borom bi tabaraka wa taala moom sañ naa giñ ci mbindeefam yi ku ko soob waaye mbindeef moom waxoon nañ ne sañu la giñ ci lu dul yàlla subhaanahu comme ni ko yonent bi waxe kuy giñ ci yéen na giñ ci yàlla wala mu noppi yàlla fii ñaari garab yii mu giñ dafay junj béréb ya nga xamante ne fala ñuy faral di sax muy Shaam te muy béréb boo xam ne fa la yàlla yónni woon yonent yàlla Isa mu teg cee ne wa siiniin wa bi tabaraka wa giñaat ci beneen mbindeef muy xeer woowee montagne woowee nga xam ne moo nekk ca Sina ca béréb bu naan Sina ab gox la ab désert la bu nekk ci diggante Égypte ak Palestine aw xeer wu fa nekk wu tudd tuur te borom bi tabaraka wa taala giñ ci moom ca weneen saar muy wa tuur borom bi tabaraka wa taala giñ ca xeer woowee te mooy montagne ba nga xam ne borom bi tabaraka taala fa la doon waxeek yonent yàlla muusa borom bi tabaraka wa taala yemul foofu mu giñaa wa hada albalad alamin wa hada albalad alamin maa ngi giñ ci dëkk bii dëkk bu wóor bii muy makka yàlla daal di giñ ci makka itam muy béréb bi nga xam ne fi la yónnee sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa kon nga gis ne borom bi tabaraka wa taala giñ gim giñ ci ñaari garab yu njëkk yi muy attiin ak azaytuun ma ngay junj béréb ba nga xam ne fa la yónni yonent yàlla isa mu teg ca giñ ca montagne ma nga xam ne fa la doon waxee ak yonent yàlla muusa giñ ci dëkk bi nga xam ne mooy màkka te fa la yónni sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa ñetti yonent yooyu ñooy ñetti yonent yi mujj yi alquran tudd kon borom bi tabaraka wa saa yu giñee am na lu ko tax a giñ ñu di ko wax jawaabul qasam ñenn ñu di ko wax almuqsamu alayhi mooy yàlla ginnaaw bi mu giñee لن لبغى وخ لن لا جنل. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم مرمبي تبارك وتعالى بندنا نيت nit nag fii bu ñu ko waxee mooy nit ñëpp al gi ci nekk lil jëns la mooy mboolem nit rek mboolem kuy nit borom bi tabaraka wa taala nee na bind naa nit kooku fii ahsani taqwim ca defarin wa gën a rafet ca defarin wa gën a rafet yàlla ni mu binde doomu aadama ci jëmm ji dafa rafet cëru doomu aadama boo jël teg ko beneen place bu bokkul ak bi ko yàlla teg dafay daal di ñaaw kon ni yàlla binde nit mooy bindin wi gën a rafet wi nit yelloo waaye borom bi tabaaraka wa bindin wu rafet wi mu bind nit yemul ci jëmm ji waaye lim ko mooñaaleel mu judduwaale ko mooy wéetal yàlla borom bi tabaaraka wa dafa bind nit ci bindin wi gën a rafet ci jëmmam waaye dafa bind nit ci bindin wi gën a rafet ci nim ko mooñaale mu ganewaale ko àdduna te mooy wéetal yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bépp nit buy juddu di gane àdduna buy ñëw li muy ëndaale mooy wéetal yàlla nature boobu nga xamante ne moom la yàlla mooñaale doomu aadama muy wéetal yàlla moom lay indaale mu mel ne dañ ne waaw kon lu tax nit ñi ñii màgg di weddi yàlla ñii màgg nekk ay juif ñii màgg nekk ay chrétien duñ nekk ay jullit di wéetal yàlla yonent bi ne fa abawaahu yuhawwidaanihi aw yumajjisaanihi bi ne ñaari way juram moom nit mi gane si àdduna indaali yàlla ñaari way jur yi ñooy jeexital ci moom ñoo koy def juif ñoo koy def ab chrétien wala ñu def ko koo xam ne majuus lay doon di jaamu sawara kon ñaari wayjur yi ñoom ñooy soppi wéetal yàlla gi nga xamante ne la ëndaale ñoo ko ca mën a jëmbat ñoo ca mën a saxalit mu des ak moom loolu day wane mbokki julit yi solo su ñaari wayjur am ci yar njaboot muyuk soññi ci képp koo xam ne wayjur nga bu la yàlla joxe njaboot nga yar leen yarul jàngal leen yoonu sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci lépp ci nit ki ni muy jaamoo yàlla digganteem ak boroomam ci nit ki ni muy jëflante ak nit ñi digganteem ak moroomam moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne woon kenn ku ne ci yéen ab sàmm la te sàmm bu ne danañ ko laaj lim doon sàmm mu ne yow boroom kër gi sàmm nga ci sa kër te danañ la laaj li nga doon sàmm li nga doon sàmm mooy lan mooy sa njaboot ndax teg nga leen ci yoon wi nga xamante ne ci la sayiduna muhammad salallahu alayhi wa sallam nekkoon ak saaba loolu nag am na lu muy jur li muy jur mooy ndekete nit ku nekkoon war ngaa xam yonent bi salallahu alayhi wa sallam aw yoonam mooy lan mu doon dund yonent bi ci pas-pasam digganteem ak boroomam lu mu fasoon alquran wax nañu ko yonent bi nettali nañu ko ndax xam nga ko yow borom kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nan la doon jaamoo yàlla nan la doon jullee nan la doon woore nan la doon joxe azaka nan la doon aje màkka yooyu yëpp yonent bi jàngale na ko saaba yi melal ko ndax xam nga ko yow boroom kër ba man koo jàngal sa njaboot ñu sax ca moom dala yàlla yónni woon ci yow boo réeree aw yoonam fooy jaar ba yegg ci ngërëmal borom bi tabaraka wa kon comme que way jur nga te yonent bi neena ab Sam nga sa kër te danañ la laaj li nga doon sàmm te li gën a rëy ci li ngay sàmm mooy nga teg sa njaboot ci yoon wi muhammad rëddoon kon war nga koo xam war nga koo jëfe war nga cee yar sa njaboot te ñu bari ci doomu aadama yi loolu dañ koo sàggane lu bare bari ci doxalinu yonent yàlla muhammad ci côté yépp dañ koo réere loolu nag li koy faj mooy jàng kepp danañ ci ñëw ci ay teqale ci bind yi nga xam ne moom la ñu jublu kon mooñaale gi yàlla mooñaale doomu aadama wéetal yàlla ak defar gi mu ko defar ci jëmmam mu nekk ku rafet loolu dafa bokk ci xéewali sunu boroom yi jaam bi war koo sant naka la ko jaam bi di sante mooy mu jëli cëram yi yàlla defar defarin wu rafet wii di ci topp yàlla subhanahu wa taala bañ ko cee mooy nii mooy sant gi reconnaître ne xéewal gi ca yàlla la jóge waaye di ko wax ci làmmiñam di sant yàlla subhanahu wa taala nii la ñuy sant xéewal gi waaye yow mi nga xamante ne way jur nga nga xam ne sa doom bu ganee àdduna wéetal yàlla la ko yàlla mooñaale muy mooñ gu rafet waaye waaye bu ko soppi fexeel ba saxal wéetal yàlla googu ci moom te mooy nga jàngal ko yoon wi sayyiduna muhammad rëdd nga teg ca sa tànk teg ca seen tànk moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam détaillé ci xale noo koy yare noo koy jàngalee julli bu amee juróom-ñaari at ba sax danga koy dóor bu amee fukki at bu ko deful ak yu ko nuru laqad xalaqna al insana fi ahsani taqwim kon ci bindin wu rafet woowu ci jëm ci bindin wu rafet woowu ci mooñaale ko wéetal yàlla ci la yàlla bind doomu aadama waaye nag doomu aadama bi mën naa bañ a sant yàlla sax ci li ko yàlla digal mën naa bañ a saxit ci wéetal yàlla gi ko yàlla mooñaale mu soppiku moo xam way juróom a ko soppi moo xam dafa màggit daal di topp bànnee xam soppiku ginnaaw bii way juram defee ci moom lañu war a def ci moom budé jàdd na yoon woowu wàcc yoon woowu nga xam ne moom la ko yàlla moo ñaale bu boobaa day tàbbi ci safaan bu ëllëgee day tàbbi ci safaan bu ëllëgee bu demee ca borom moo tax borom bi tabaraka wa taala teg ca ni summa radadnaahu asfala saafiliin summa radadnaahu asfala saafiliin yàlla ci yàlla musal ginnaaw bi ma bindee doomu aadama ci bindin mu rafet ci jëmmam moo ñaale ko wéetal yàlla muy melokaan wi gën a rafet mën naa wàcc yoon woowu nag dëng ay waajuram dëngal ko wala mu màgg dëng te bu boobaa bu ëllëgee yowmal qiyaama summa radadnaahu ginnaaw bi ma ko defalee yooyu yépp wa ginnaaw bi mu dëngee danaa ko delloo asfala saafiliin ca sawara wa gën a xóot sawara wa gën a xóot gën a suufe yal nañ ci yàlla musal lu tax ndax wàcc gi mu wàcc yoon wi nga xamante ne moom laa rëdd te moo ko ko muy wéetal yàlla kon fii liñ fiy dégge mooy kon ndekete jaam bi daa war a sax ci wéetal borom bi tabaraka wa taala yàlla ñu ko yàlla defal kon nit ki bu wàccee yoon woowu yàlla da koy delloo ca safaan ba gën a suufee faye ko ko ngir jëf li mu jëf thumma radadnaahu asfala saafiliin ginnaaw bi mu wàccee yoon wi nga xam ne moom laa ko mooñaale dana ko delloo kon ci sawara wa gëna soufey yalla ci yàlla musal illa alladhina amanu wa amilu salihati falahum ajrun ghayru mamnun illa alladhina amanu wa amilu salihati falahum ajrun ghayru mamnun yàlla neena ndare gaañ nga xamne nak ñom dañu gëm yàlla dañu gëm yàlla di jëf-jëf ju baax nga xam ne ñoom dañoo sax ca melokaan waleen yàlla moo ñaale woon ba ñuy gane àdduna muy wetal yàlla ak topp yàlla nee na gaa ñooñu illa alladina aamanu ndaree gaa yi nga xamante ne dañoo gëm wa amilu saalihaati di jëf-jëf ju baax te mooy melokaan wi leen yàlla moo ñaale woon ba ñuy gañ àdd gane àdduna ñooñu de wàccuñu yoon ñooñu luy seenu pay falahum ajrun gayru mamnun yàlla nee ñooñu pay goo xam ne du dog tuyaaba ju dul dog fay gu rafet gu dul dog ñeel na leen te mooy aljanna te it pay la goo xamante ne kenn du ne leen waaw lii de dañ leen koo fay waaye tegal leen ca baat boo xamante ne naka su dul noona la déedéet waaye borom bi tabaraka wa ñii dugg àjjana du ñëw di leen yëjji de waaye da leen di ndokkeel salaamun malaaka yi di ñëw salaamun aleykum tibtum fadxuluha xaalidin loolu lañ leen di wax yàlla ñu boole ci yàlla boole ci ñi ñuy wax loolu waaw yéen jàmm ak mucc yàlla wàcc ci seen kaw toog leen aljanna toogaay gu teey dugg leen biir aljanna sax fi dakk di xéewlu loolu lañ leen di wax xayru mamnuun muy pay goo xamante ne ak tuyaaba joo xamante ne du dog day continuer waaye duñ la ca tegal kàddu goo xamante ne naka sudul noonu la waaye dañ lay ndokkeel malaaka yi ñëw di la ndokkeel borom bi tabaraka wa taala daa di dindi kiiraay li doxoon digganteem ak jaam ñu ñu jàkkaarloog jëmmi sunu borom ji bu ñu duggee aljanna yàlla ñu ko yàlla defal mbokk yi lii ki koy am mooy kan mooy ki sax ci wéetal yàlla gi yàlla moo ñaale doomu aadama fii ahsani taqwim wàccul yoon sax ci yoon wi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam rëddoon yàlla ñu ko borom bi defal ginnaaw gi borom bi tabaraka wa taala daal ni fama yukadibuka badu biddin fama yukadibuka badu biddin waaw gannaaw bi nga xamee ne yàlla dafa bind doomu aadama ci bindin wu rafet ci jëmmam mooñaale ko ak melokaan wu rafet muy wéetal ginnaaw bi nga xamee nit ne ku wàcc yoon woowu nga xam ne moom la yàlla mooñaale doomu aadama yàlla dana ko dugal sawara sa gën a bu ëllëgee te sawara soosu kenn du ca mucc ku dul ku gëm yàlla di jëf-jëf ju baax ñooña ñooy am pay gu mat ga pay ga dul dog pay ga nga xam ne du ànd ak wax bu dul boo xam ne naka su dul noona la ginnaaw bi nga xamee lépp ne lii nii la mbir yi di doxe te ëllëg yowmal qiyaama la pay googu di xew fama yukadibuka baadu biddin Fi yàlla nit lay waxal nit kum mën a doon yow kiy wax ak yow miy dégg yow la yàlla di waxal fii waaye nit kan mooy nit koo xamante ne nag na bisu penc ginnaaw bi nga xamee ne yépp dana xew bu ëllëgee yàlla di fay jaam ñi nga xamante ne ñoo doon def lu baax lu baax ñi doon def safaan ñu dajeeg safaan te lii luy am la kon lu tax ngay weddi bisu penc bi. bis bi yàlla di fay jaam ñi fama yukadibuka kon lan moo la weddiloo baadu ginnaaw bi nga xamee ni yii yépp day xew yàlla wax ko te yàlla lu mu wax dëgg la biddiin ci bis bi nga xamante ne ci la yàlla di fayee jaam yi seeni jëf lan moo la weddiloo bisu pénc bis bi yàlla di fay jaam yi seeni jëf ginnaaw bi yàlla waxee ne lii nii lay xewee te yàlla lu mu wax dëgg alaysa allahu bi ahkamil xaakimiin أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ خنال برم بتبارك وتعالى مو دق أت نيب كوي أت يلا لا دق أت تب أتن من تجتين ما نته متم برم بتبارك وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة اللي يوم القيامة يلا نندني إندي بالانس يوم ما نو دي بيسة جامي أكسيري جوفي فلا تظلم نفس شيئا يلا نين الله يوم القيامة كن دوتون كن يلا دوتون كن كوتين سجف دنا لكو فاي يلا دو جيل سانكسيون ديكو تك كو خامنتيني مويو واتيو يون فلا تظلم نفس شيء وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين يلا نينا لو توتي توتي moo xam lu baax la moo xam lu doon bon la dinañ ko indi yàlla nee na yàlla rek moo mën a réglé kon bis bii warees na koo waajal ndax comme que li ngay def bu ëllëgee ci lañ lay réglé na rafet ngir nga mën am pay gu rafet waaye ngir nga mën am réglé gu yomb comme ni mu ko waxee ci yeneen laaya moo ëllëg yowmal qiyaama gaa ñi nga xam ne ay kàccoor lañ li leen jom li leen gën a jommal ci regleeg sunu boroom mooy seen téere bi moom dara bàyyiwu ko wa wudia alkitaab yàlla nee na bu ëllëgee dañuy teg téere bi nga xam ne mooy téere bi jëfu nit ki fa tara al mujrimina mushfiqina mimma fii nee na kàccoor yi ragal lool tiit lool ci li nga xamante ne moo moo ne ci téere boobu wa yaquluuna yaa waylatana ñuy wax ne ah ñun de toskare nañu lu tax maa li hada la laa yugaadiru saxiratan wala kabiratan illa axsaaha waaw téere bii moom suñ téereb jëf bii moom de bàyyiwul dara lu ndaw ak lu mag lu dul ne noté na ko bind nañ ko mi ngi nii tege suñ kanam tey moo tax yàlla ne wa wajadu maa amilu xaadiran yàlla nee na lañ doon jëf yépp ca àdduna ñu fekk ko ñu teg ko ci seen kanam mu ne dàññi ci seen kanam yàlla nee na wala yadlimu rabbuka ahada sa borom du tooñ kenn ku ci ne sa jëf la lay fay ndax jëf ji nga doon jëf ci àdduna dañ koy teg ñii nga gis ko ci sa kanam te doo ci mën a weddi dara te doo ci mën a weddi dara bu boobaa fooy jaar ba raw mënoo jaar fenn ba raw te kenn mënu laa xettali sa jëf jooju te li gën a lu ci bisu penc mooy borom bi tabaraka wa par kenn kenn lay réglé bu doon bu lay régler amna ñeneen ñu taxaw ño xamantene man nañu intervenir na yàlla ah ki kat mom manam tin ñu ci rek dedet yàlla day régler par kenn kenn ba pare leneen luy xew doog a xew motax borom bi tabaaraku wa taala ni wa kulluhum aatihi al-qiyamati fardan neena nit ñépp ëlëk ëllëg al-qiyamah par kenn kenn lañuy ñuy ñëw jàkkaarloog seen borom yàlla di àddu ngay teewlu ngay wax mu di la déglu te moo la gën a xam la nga doon def foo jaar bisu penc nii la ko yàlla waxee ci alquran moo tax fa maa ko baadu bi diin buñ jàpp ne ñii weddi bisu penc mooy yéefar yi nga xam ne dañ naan ah yowmal qiyaam du taxaw nit bu dee dee na déedéet man ngaa weddi bisu penc fekk yaa ngi askanoo ci lislaam lan mooy weddi bisu penc fekk yaa ngi askanoo ci lislaam mooy nga jàpp ne bisu penc am na xew-xew yu fay xew yu bokkul ak nii ko yàlla waxee ci alquran jàpp ne bisu penc ah bisu penc moom comme que man màkk laa dëkk ah ñun moom waa màkk dañ ñuy buub rek dugal aljanna bisu penc comme que man wolof laa wolof yi moom duñ taxaw dañuy ñëw rek buub leen yóbbu aljanna bisu ci doxewul noonu alquran waxul loolu kon ku bëgg a xam nu bisu penc di taxawee da ngay jàng alquran lii ñu doon wax wa kulluhum aatihi yowma alqiyamati farda kenn ku ne day ñëw taxaw ci sa kanamu borom yow rek yàlla bi àddu ngay teewlu ngay tontu te moo la gën a xam li ngay wax borom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni ku ne ci yéen dana taxaw ak boromam jàkkaarloog moom laysa baynahu wa baynahu turjumaan nee na nit ku ne dana jàkkaarlook yàlla ëllëg yowmal qiyaama mu di la le yonent bi nee na kenn du dox sa digganteeg sa borom du am intermédiaire boo xam ne moo naan yàlla kii de nee na nàngam wala yàlla wax nga ni ko ah, yàlla nee na nàngam déedéet yàlla ay addu ngay teewlu nga di ko tontu te moo la gën a xam li nga doon jëf fooy muccee boo bëggee mucc awal ca yoon wa léegi balaa ëllëg a ñëw lu tax yàlla di ñu nettali lii xew ëllëg yowmal qiyaama benn ngir ñu gëm ko ndax gëm bisu penc ci ponki ngëm yàlla yu juróom benn ci la bokk moo tax yàlla toujours muy faral di lënkale gëm bisu penc ak gëm ko moom ndax nit ki bu gëmee bisu penc yu bari du ca dugg waaye nag bu fekkente ne danga ngaa défor da ni ni bisu penc tëddee te alquran nettalee ko noonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nettalee ko noonu loolu mooy tax njaaxum yu bari doomu aadama yi di ci dugg ndax doomu yu baree bari dañuy sax ci ay moy yàlla bàyyi ponki lislaam bàyyi julli bàyyi woor bàyyi dem makka bàyyi wéetal yàlla di def lu leen neex ci àdduna boo leen waxee ñu ne ah man kat bisu penc moom dama am ku ma rawale mbokki jullit yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxuñu loolu alquran jii ñuy jàng waxuñu loolu gis ngeen saar wii li ci yàlla wax ci bisu penc bu fekkente ne li la yàlla mooñaale ci ngëm yàlla ak wéetal yàlla ak nangul yàlla da nga koo wàcc yàlla nee na summa radadnaahu asfala saafilin li yàlla wax nag mooy dëgg bu ëllëgé sawara sa gëna xóot ngay dugg sawara soosu kan moo ciy mucc yàlla ne illa alladina amanu wa amilu salihat fa lahum ajrun gayru mamnun ñi gëm yàlla amanu ñi gëm yàlla gëm yàlla gëm malaaka yi gëm yonent yi gëm téere yi ñu wàccee ci ñoom gëm bisu penc gëm dogal ñooñu nga xam ne gëm nañu yàlla wa amilu salihat di jëf-jëf ju baax ña ngay wéetal yàlla ña ngay julli ña ngay woor ña ngay génnee azaka buñ ko manee ña ngay aj màkka suñ ko manee benn yoon ña ngay tudd yàlla ña ngay baaxe seeni wayjur ña ngay saraxe di jëf-jëf yu baax yooyu yàlla nee na ñooñu ñooy mucc bu ëllëgee falahum ajrun gayru mamnun lii la yàlla wax boo ñëwee wax leneen nag wala ñu défor nga déformé bi su penc ne neneen lay tëddee nu bokkul ak ni ko yàlla waxee bu boobaa loolu mooy dugal nit ñi ci njaaxum yu bari mooy dugal nit ñi ñuy def ay mooy yàlla yu waaye mooy yóbbe nit ñi ñuy bàyyi ay ponki lislaam di neenal ndigalal sunu borom subhanahu wa taala te loolu boo ko defee yaa ngi weddi su penc ndax yaa ngi jàpp ne su penc nii lay tëdde te yàlla subhanahu wa taala dañuy nee lay tëddee te la yàlla wax mooy dëgg kon yow dafa mel ne dangaa ngaa teggi wax yàlla ne bisu penc nii lay tëddee nu bokkul ak ni yàlla wax fa maa yukadibuka baadu biddiin ginnaaw bi yàlla leeralee lii ci alquran lu tax ngay weddi bisu penc ne du am yow yéefar wala yow julit bi nga xamantene da nga gëm ni bisu penc day tëddee neneen nu bokul ak niko yàlla waxe lutax nga weddi lolu saxal lolu te yàlla li la saxal ci alquran mu leer nañ alaysa allah bi ahkami alxaakimin qana du yàlla subhanahu wa taala mu dàq at ñep te àtteem ci maandu te la tege du bàyyi dara kon yàlla ñu borom bi tabaaraku taala yeeram bu boba waaye yàlla ñu yàlla defal tawfiq ba fi ñu ne ci aduna ñuy sax ci lu baax di won gannaaw lu bon ba ba ñuy dajeek ngërëmal borom bi tabaraka wa taala هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين